tey mu nekk émission sortie spéciale ñu fas yéene def de l' euh, politique. que à Grand Yoff le Pastef a trahi Khalifa Sall à Grand Yoff ànd ñoo ñun Grand Yoff et pourtant ñu ko toog noppi ko di liggéey. ce qui est grave mooy bi ñuy bàyyi ñun waxuñu ko. maa ngi naan mag euh, est ce que c' est Macky qui a choisi wala dañ ko imposer Amadou. xam naa ne daal FMI ak Banque mondiale ak France posé nañu ci candidature Amadou Ba benn ñaareel bi. Amadou Bari n'a jamais été le candidat de Macky Sall jamais de la vie. Karim Wade moom kooku cheval non partant la. waaw ah waaw. daa Sénégal benn parti presse boo xam ne dañuy yokk dañuy. monsieur le maire je regrette bàyyi presse bi parce que xaaral may ma mami monsieur le maire non attends la presse a bon dos xam nga lu ñëw xale yi non may ma rek xale yi bi ñuy ñëwee di génn. man presse bi moo génne. non génne. xale yi leen xale yi génne seen bopp. xalifa bañ koy toon ci ay jamono bañ ca waree wax wax nañ ci. c'est que ampleur bi mu am ak Ousmane Sonko amu ko ak Khalifa sal parce que Khalifa Sall n'est pas Ousmane Sonko Ousmane Sonko n'est pas Khalifa Sall ku ci nekk ak lii la yàlla ma on l'accepte kee phénomène la waay dafa bari doole effectivement kenn mënu ci dara on l'accepte